إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار عباد الله اعلموا أن الله لم يشرع لعباده إلا عيدين الفطر والأضحى فما بالكم بالأعياد الشركية أعياد الكفرة المعاندين المعادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليس على المسلم أن يبحث عنها ولا أن يعرفها إلا على سبيل التحذير منها فكيف بمن يسعى لها ويرتب برامجه ورحالته على حسب وعديعها ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول جل وعلا في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroomu subhanahu wa taala moom mi yeyoo cant di ko dimbali ko moom kese mi am kàttan di ko ñaan mu jéggal ñu moom mi jéggalaa ko ni di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala moom kese mi jurul kenn kenn juru ko te du nawle ci kenn di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la yal nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam fi léeg guddi yeeg bëccëg yee ngi awante mbokk yi ñu leen dénk dénk suñu bopp ragal suñu boroom subhanahu wa taala te ñu xam ni suñu jëmm yi bis bu nu sàgganee ba mu teeri ëllëg ca këru safaan sa mooy ni dañoo saxul woon ci taqwallah muy ragal yàlla di def li yàlla digle di bàyyi dem tere te ñu xam ne it benn njub moo fi am mooy njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sirat al mustaqim moom la waxoon ni nañu topp wa wa ann hada sirati mustaqiman yoon wii mooy yoon mi jëm mbir aljanna mooy sirat al mustaqim fattabiuhu na ngeen ko topp wala tattabiu subula bu leen topp ñall yi fa tafarraqa bikum an sabili ndax da leen di dévier da leen di jàllaloo ca mbooy ga mooy fa nga xamante ne mooy këru safaan sa yàlla ci yàlla musal lépp lu ñu sos si diine mbokk loo xamee ni dañ koo askanelee diine dem na ba jamono xammee too ci la cay diine ak la ci dul diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bidaa la dafa muy jëme nit ki mooy ci réer te képp ku réer fa nga jëm mooy biir safara wala iyaazu billah yàlla ci yàlla musal mbokk yi ñu xam ni xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñaari feet la ñu am feet bi ci njëkk mooy iidul fitri mooy korite ba ca topp mooy iidul adha mooy tabaski benn bu nekk ci ñaar yooyu day fekk nga bàyyi ko ci jaamu yàlla bu rëy bi ci njëkk mooy koor yàlla na ngeen ndokkalante seen biir na ngeen jéggalante seen biir seeni bàkkaar ndax génn ngeen ci jaamu yàlla boo xamante ni képp ku ko yàlla nangul ba nga fekk si guddi googu nga xamante ne mooy xayru min alfi shahr mooy laylatul qadr fompal na la see bàkkaar bu mu set fanweeri fan na mat na wala ñaari fukki fan ak juróom-ñeenti mat na mooy na ngeen feetu loolu ginnaaw gi beneen feet bi mooy tabaski nga jóge wat ci jaamu yàlla bu rëy muy aj jaamu yàlla boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alhajju almabruur laysa lahu jazaan illa aljanna aj gu nangu de amul lenn luy payam lu dul biir aljanna mbokk yi ginnaaw ñaari feet yooyu benn feet la ci borom xam-xame ni mën na ko ñetteel muy bisu tey bii di yawmul jumaa ngir la ca nekk ci ay ngëneel ak la ca nekk lépp ci ay xew-xew mbokk yi ginnaaw feet yi nga xamante ni moom la ñu islam tànnal ñu war koo di feetu beneen bu dul feet yi ñu xool la cay la yàlla digle ñu def ko lam cay tere ñu bàyyi ko bu dul benn feet bu dul feet yi beneen feet amul bu war a julli di war a feetu rawatina ñaari feet yi nekk ci suñu kanam ci weer wii muy feetu pas-pas feet boo xamante ni alquran dafa ñëw leeral ko ci suuratul kaafiruun ci nihaayati suura bi yàlla ni lakum diinukum waliya diin ginnaaw bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de lam doon woowa màkka mooy ña weddi woon mooy ni lii ngeen di gëm muy ataaddudul aliha yàlla yu bari yi ngeen di gëm benn yàlla moo am mooy laa ilaha illa allah moom dong lañu war a gëm moom dong lañu war a jaamu ba mu demee ba mission bi di war a jeex yàlla ci seen cohésion sociale yoom saa sallam yàlla wax ko ne ko waxal kaafiroon yi nga xam ne ñoo ñu weddi ne leen lakum diinukum léegi ñoom mën nañu pratiquer ñoom seen i diine seen pas-pas nañ leen bàyyi seen pas-pas wala ya diin ñun ñu garder suñu pas-pas mbokk yi feet yi nekk suñu kanam muy feetu kàddu goo xamante ni ba mu jibee ba mu njëkkee jib yàlla mu ne takaadu samawaat yatafattarun asamaan si xaw tuut mu xar montagne yi fondre ndax kàddu gu rëy gi ñu dégg mooy an daa lirrahmani walada subhanallah ndax dañu war a utal yàlla ndend feet googu mbokk yi waxoon nañ ci xutba bii passé ni wala tattabiu xutuwaati shaytaan nañu maytandiku ndëgg sërëx yi ñu iblis di tegal ndax lii di weer yii di janvier février ba décembre ñun ginnaaw bi ñu coloniser lañ ñu indil loolu liggéey ba ñuy liggéey ak ñoom moo ñu booleeg weer yooyu weer dee ñu fay la sa àq ginnaaw loolu amul benn feetu pas-pas buñ bokk ak ñoom léegi seytaane làqatu na ci ginnaaw feet yooyu mbokk yi entreprise bu nekk ci jamono ji ñu ngi lay naxee ni ah fi nga liggéeyee at ba at mi dee kenn ku ci nekk bëgg nañ nga indi sa doom mu ñëw ñu feetandoo arbre de Noël subhanallah ñu feetandoo pas-pas boo xamante ni mooy pas-pasu yàlla de am na ak wuutu subhanallah xoolal mbokk yi ni cheytaani rafetalee mbir mi fa zayyana lahum cheytaan amaaluhum ci ku nekk na indi doomam ñu feete lool yow nga ni ah garaawul de xale yi rek la loolu moom ñu rafetal ko mbokk yi inna alxalaala bayyinun yonente bi salaa sallam nee gis nga li dagan leer na wal xaraamu bayyinun li xaraam it leer na yi lënt nag yooyu ci la seytaane di làqatu di leen dugal ci nga dund at ba at mi jeex mu dugal la ci fiir bi nga xamante ne moom la njëkk a soxla ci nit ki mooy wedd loolu yàlla mu bokkaale loolu la nga ñëw fekke feet gi waaye ndox ak ñoom feet ndox ak ñoom ba mu jeex sa doom dem nga dem ku ne dem ngeen jàpp ni li ngeen def dafa bokk ci seen bokkul ci ñun mbokk yi ni ñu toogee nii ci jullikaay bi kenn raxuñu ci ahlul kitaab ndaxte mbirum pas-pas la noonu la seeni bis di jot ca fa ñuy dajaloo ñoom doom ñoo fay nekk amul beneen julli bu fay dem naka noonu it feet yi da ci am loo bokk ak loo bokkul mbokk yi ay xutuwaatu shaytaan moo nekk nii ci suñu kanam cheikh al islam dafa wax ni dafa bokk sax nga ci musharaka ci feet bi nga participer ci mooy nga nga def benn activité buy mandargal ni da nga kontaan ci bis bi moo xam cadeau bi gën a tuuti nga jëndal ko sa doom ngir bis bi wala sa cin bi nga soppi ngir bis bi wala lu mu mën a doon ndax borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni wa taawanu ala al birri wa taqwa su ngeen di dimbalante na ngeen di dimbalante ci njekk ak ragal yàlla wala taawanu ala al ismi wal udwan bu leen dimbalante mukk ci loo xamante ni dafay jur ay bàkkaar ak i noonu ñun nag islam dañu indil ay saxaaba yàlla yàlla fayal leen asmaa bint abi bakrin radiyallahu anha muy mag ci suñu yaay Aïcha fu magee suñu yaay Aïcha fukki at moom way juróom bu jigéen ci waa ahlul kitaab la bokkoon ñëw indil ko cadeau en tant que yaay ak doom wante doom ji ci mu fi mu bokk ak fi yaay ji bokk du benn wante il faut mu dem laajte bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu lan la ko ci islam wax asmaa wu dem ba ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sama yaay moo ma indil cadeau bi te moom bokkul ak ñun pas-pas nan lay def ak lii muy équation ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wàcce aaya ci saa si ni ko laa yanhakumullahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin mu ne yàlla de terewuñu aayewuñu de ci ñi nga xamante ni bokku ñoom ñoom diine te fitnaa lu ñu ñuy rafetal jëmale ci ñoom ku ci am ko faatu na ngeen dem ngeen massawu leen ndax tiis la ku ci amit bànneex na nga dem nga ndokkale ko te ngeen am foofu ku ci faatu wala tusalli ala ahad minhu maata abada wala tus wala taqum ala qabri ku ci faatu yàlla mu ne ginnaaw massaw boobu bul dem mukk di fekkee seenu wàccaay wala seen ak rob kon kay islam moom tracel nañu fa na war a jaar mbokk yi jullit dafa war a yittewoo li nga xamante ni mooy ay mbiram mu di ci dox wala tattabiu xutuwaati shaytaan ñu bañ a dugg ci ndëgg sërëx bi nga xamante ni moom lañu iblis tegal aqul ma samiatum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri muslimin kulli zanbi fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokki ginnaaw bi ñu santaate yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi jurul kenn kenn juru ko te du nawle ci kenn di seede ni moo ñu yabal ci suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubam di rafetal ba ba yàlla di doon suufam si mbokk yi ñu mooy ci alquranul karim bi nga xamante ni fa la yàlla wax ak ñun leeralal ñu ana yan tànk lañ war a doxee ci kaw suuf ngir ëllëg ñu am ngërëmam yonente bi sallallahu alayhi wasallam de dañoo ñagaat ba tey ci beneen xadis mu ni man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xamante ni ab jullit nga ku dul jullit di feetu ab feetam nga topp ko di di participer ci lenn ci feet bi nee na fa huwa minhum jàppal nañ ci ñoom nga bokk wala iyaazu billah mbokk yi yàlla mu ni ñun ñun ñooy xayra ummatin uxrijat linnaas il faut que ñu xam ne ñun ñooy xeet bi gëm bi gën ci xeet bu mos a wàcc ci kaw suuf la ñu yàlla sant nag ci loolu mooy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar mooy ñu waxantee dëgg di leeralante ñuy waxalante dëgg te di leeral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxaat ci hadisul qudsi yàlla wax ko ni ko kaddabani ibnu adam doomu aadama bi de fenal na ma weddi na ma walam yakun lahu dalik te loolu de waru ko woon wa shatama nii mu ŋaññi ma maanaam mu saaga ma walam yakun lahu dalik te loolu war ko woon de mu ni fa amma takdibahu iyaay weddi gim ma weddi man mooy fa zaama anni la aqdiru ala uidahu kama kaana moom gëmul ni bu faatoo dinaa ko dekkil bis lépp luy morso ci moom du manqué wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati fardan kenn lu ko nekk dina ñëw ci ñun nee na loolu la loolu la weddi loolu la weddi wa amma shatamahu iyaay mu ni nag saaga gi ma saaga mooy fa qawluhu lii walad subhaani nee na daf ma daf ma daf ma ŋàññi mu ni man dama am doom subhaanallah wa an attaxida saaxibahu wa walada subhaani an attaxida saaxibatan wa walada yàlla mu ni sell ñeel na ma man mi nga xamante ni yàllawu ma am soxna bay am doom subhaanallah mbokk yi pas-pas boobu moo nekk suñu kanam warul ci benn jullit muy participer ci loolu isa ibnu maryam moo wax mu ni qaala inni abudu llahi aataaniya alkitaba wa jaalani nabiya loolu leer na mbokk yi nee na man jaamu yàlla laa yàlla sax ndax maa yónni ma di yonent ba jox ma téere boo xam ne mooy firnde lépp lu may wax wa jaalani mubarakan ayna ma kunt wa aataani wa jaalani qala inni abudu llah aataaniya alkitaba wa jaalani nabiya wa jaalani mubarakan aynama kunt wa awsaani bilsolati walzakati ma dumtu hayya wa barram bi waalidati tuuma giñ teg ci yaayam mu ni sama yaay de yàlla wu liñ koy waxal de musul nekk soxna si yàlla subhaanallah bay am doom mbokk yi pas-pas bii mu ne suñu kanam jullit bu ne na fexe di mooy tëndiku di tab bi ci xutuwaati seytaan mooy ndëggu sërëx yi ñu seytaan di tegal yow réeral nga sax sa doom bu yàgg tey goo ko te dafa am àq ci yow nga jokkale ko boroomam ànd ak moom ba ci bërëb ñu ne lu fi xew ñu ne arbu la Noël subhanallah xale bi màggaale loolu ngay taxaw bi julli allahu akbar xale bi li muy njëkk a mokkal ci saar yi mooy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhanallah loolu ñi seen xel nëx sax ñu ngi koy mokkal ndax yàlla message boobu ginnaaw bañ la noddalee sa nopp fii li xamal la fii muy sa bët ci la say cër fireeku di déglu ñu tàbbal ci xale bi loolu qul waxal yow muhammad allahu ahad yàlla kenn allahu samad yàlla mooy jubluwaay bi lam yalit jurul kenn walam yuulad te kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla du nawle ci kenn du morom kenn laa hawla wala quwwata illa billah nga jël sa doom yóbbu ko ñu koy feetal xeetu feet yooyu nga jàpp ne dara xewul mbokk yi looloo xew qumu ila salaati yarhamkumullah bismillah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله